fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. nañu wut daara ji ñuy jàngale njàngaleem Sëriñ Tuubaa ba ku bëgg a jàng njàngaleem tuba Tuubaa boo ñëwee ñu jàngal la njàngaleem tuba Tuubaa bokk yi lan mooy njàngaleem Sëriñ Tuubaa xanaa du jëlee naa ci mag. bis ci njëreem nee na woon am na ku ma wax ne am na ku ma wóolu ndax moom mooy kan bañ di ko wóolu ba kami wóolu ñu di ko ci wóolu wale te minum Sëriñ Tuubaa ne fàng Sëriñ moo wax ne ku bëgg a àgg ci yàlla da ngay ngoy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te dem toppi te di ko roy ci koo xam ne yonent bi nekkatu fi na dem wuti kum koy toppandoo ci moom koo xam ne du jeng tarfata aynin te koke su ko defé mom daanam wàcc koke muy top moom itam fu tànkam mu diko xol mu teggu ci xam-xam bu leer nañ te lum gis ci ñom lu nono mu tagale ko ñom man talaba al wusula lil jalili falyatasim bi sunnati rasul bi an yulazima mutian la yamin في ظاهر وباطن batin السبيل يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه ibada kama mu leer nañ am na fu Serigne Touba di wax ne li wax ci njàng moom bari na waaye aka neexoon tey ñii jumaay Serigne Touba amee ci Touba bibliothèque bu Serigne Touba am ci Touba ñu ne koñ boo dem ci Touba dara Serigne Touba nga fa joo xam ne xàll wañ xàll di ko teg ci téere bi Serigne Touba ko bind tam leer nañ kon su boobaa ku ku ku njàng ku njàng mii neexut wala soo demee ba jàng li fi jàng mën a dem feneen ndax xam-xam daa ubbiku xam-xam tënkuñu ko rek ci ci waju Sëriñ Tuubaa dara su bindutoon defutoon ci loxoom aw nit ñu jaar fa mu bëggoon ba mu di leen dénk ay yëfam kon nu muy demee koo xam ne bind na mu leer nañ nanguwuñoo jàng mbind mi mu def ci aw nit li na ci mbind mi mu leer nañ nanguwuñoo topp loola dem dem bam yag banex ak ni la ko gisse ak ni la ma doye am na ñoo xam ne naan lii moo ma doy man li ma doy li la doy kan moo la ko la ci mbirum Sëriñ Tuubaa tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla ande kenn ku dib jullit mënu ko bañ yoon wu ñuy war jaar ba man a gañe Sëriñ Tuubaa gisaguma ko seetloo guma ko